bi mbas mi c'est vrai que impacté na trop ci tourisme parce que qui parle du tourisme moy dem ak dikk la to buñ ñu tay euh, dem ak dik bi wax dëgg yalla touriste du fi ñëwati to dañ aussi mbir mi euh, jaaduwul euh, foo xam vraiment ay nit dañ fay dajé looloo tax ñu né won nañu tëj hôtel yi hôtel nak boko ko moy amatul activité bo amatul activité naturellement day impacté ci kat bi impacté aussi ci nga ki nga xamante ne mom moom entreprise bi waaye aussi de passage aussi dina gërëm borom entreprise yi nga xamné respecté nañu en tout cas l'ordonnance que le chef de l'État vraiment euh, avait mis en place pour que nous mën des fay à hauteur de 70 Nous avons aussi euh, dàq employé euh, ba ay mois de juin L'État état bi moko en place mais quand l'État l'a mis en place l'État a aussi dafa des ay mesures d'accompagnement l'État avait mis en place vraiment un mécanisme de financement qui leur permettrait de faire la préservation des emplois et aussi la préservation en tout cas de l'outil du travail Oui, l'État avait mis en place 200 milliards euh, pour un fonds de bonification à la BNDE et aussi 15 milliards euh, pour le crédit hôtelier donc l'État aussi fait ce lu mu def pour jàppale entreprises et ak borom entreprises pour ñu préserver l'emploi, bi bañ a kenn a fait kenn maanaam l'état yombalon na len, ay koppar yoo xam ne mënoon dem def avec des avec des maigres taux de 3,5 pour les bu qui bi demeewul noonu bu bëriwul lool ak aussi 2 pour ce la bu fait, euh, en tout cas ci à peu près 20 millions donc nous aussi ñu parce que état bu la to mais a demandé de faire quelque chose mais en contrepartie l'État a fait quelque chose. mais xam nga euh, patronat bi des gens ils sont omnibulés que par le gain facile ñom dañu bëgg chaque jour euh, toujours ñom toujours avantage eh, ñëpp gis nañ ko tey ñun ñun on est une structure de veille et d'alerte alerte état alerter le ministre du travail pour ne ko secteur bi mu li fi nekk ñi ko yor nga xamantene ñoy patronat bi ñu ngi jalgati yoon ñun soxla wuñu dara ñun dañuy tënku ci yoon ñom nañu tënku ci yoon nekk fi di xoxatal nit ñi di leen jaay doole di def lobby di tenir le secteur du tourisme en otage di fa def seen ay nit rek ñun loolu la ñuy ŋaññ loolu moo dul yoon. surtout jamono ji ñu nekk surtout jamono ji ñu nekk te et puis ñu leen du xaare mooy ñu bañ xaar état laaj leen dara ñoom nañu dem devant vers l' état ñu jàppale état ba ñun ñëpp ñu ànd xeex feebar bi mu jóge fi ku ci nekk delluwaat ci activité ñun loolu la ñuy laaj le patronat hôtelier sénégalais. mais leneen li ñu leen di laaj mooy ñu bàyyi xoolal da ngay xool pour la retraite à 60 ans xam nga pare ma mais am na ñoo xam ne dañ leen a gagné gagné leen ay pères de famille yoo xam ne. Nous les les léser Les élèves, ils yóbbu une retraite anticipée retraite donc ils koy préparer avez 60 ans yow avez 56 ans mais dese nga 4 ans yow avez 58 ans mais dese nga 2 ans vous avez ne mënoon préparer avec sa famille mais vous avez ils gis tey ñu forcer la retraite nga dem nga devant les tribunaux gagné les mais si on gagner avocat dañuy avocat nous avons constitué en partie civile devons faire trois appels nous gagnons gagné, en partie civile ce ba kañ ngay dem di donc nous demandons à l'État de doter de moyens à l'inspection du travail de leur laisser faire leur travail comme il faut Madame, nous lan mooy ñu bañ procès dans les tribunaux vers les tribunaux parce que nous ki nga xam ne mais mais defoo li décret là li yoon mais pourquoi ñu lay le tribunal inspection du travail ils sont là quand même pour juger et puis nous aussi RH nga devant ces inspecteurs du travail là RH aussi conseille le patronat li nga nous aussi dawal y a RH aussi nous sax le patronat à faire du n'importe quoi parce que da ngay dégg dégg nañ jamono nous patron hôtel sen ay hôtel dañ leen di dañ dafa dégrader ñañ fa ñañ fa duggal ci biir ñu ngi dégrader hôtel yi ñu ngi leen di yàq ñu mais yow naka ngay feebaree ñu duggal la ci hôtel nga tal sa bopp tal faju di dégrader hôtel mais bu fekkee ne hôtel bi am na un service d'assistance des clients mais munu dégrader hôtel bi boo boo yeewoo ñu ne la euh, ñu ne la am na loo xam ne dañ koy bind tey ci porte bi maanaam bu client bi yeewoo moom lay moom lay moom lay moom lay def tey ci gannaaw buntu maanaam kaay defaral ma chambre bi mais nga dugg defaral ko chambre bi jox ko mu lekk kooku lan lay yàqee sa hôtel am na sax ay patron hôtel yoo xam ne décoration interne yi ci biir chambre yi mais dañ ko génne. parce que xëy na ñoom peut-être euh, ni euh, utiliser hôtel bi ak ni ñu fay nekkee mais nan lañ koy waxee dès lors que l'État n'a pas demandé un cadeau. l'État paye chaque patient 50 000 francs mais yo, boo dougué duggee un hôtel il y a un service d'assistance qui est là mais si tu ñu un hôtel yo xam ne sax dem nañ ba dañ leen di lalal drap par 15 jours changer parce que établissement yi bëgguñu aujourd'hui téye personnel ba ñuy ñëw pour ñu faire di est-ce que tu comprends donc il préfère le client bi mu jëlal en charge mais naturellement dafay dégrader.